jërë ngeen jëf mbokki internetu Desport Media point com Desport TV mbokki internet yi gannaaw ba ñu leen nuyoo ku si nekk sa tuur ak sant dañ leen di ñaanal jàmm mim réew rawatina bitim réew di ñëw ak yéen seen xibaaru people. bokk na si li gën a fës si people bi ki nga xamee ne mooy la Faramareen kii di Wally Ballago sekk la chanteur du pok jamono ji nag ñuy wax ak yéen jóge na fii si Dakar di amale fële sa bi moom nag Wally Ballago Seck tey lu ñu bind si yenn kaay yi mooy Wally Ballago Seck mi ngi assuré lu toll si 2000 tables de 10 à soirée de gala de ce 25 mars fële si Coco Océan sa Gambie moom nag Wally Ballago Seck di ab gala bu dina da gala boo xamee ne ba mu ko dalee wàcc yàgg na yàggul waaye nag mu mel ni lépp sotti na nag luñ fa musta ràññee nag la ñu ràññee mooy 2000 table boo xamee ne tey Wally Ballago Seck feesal na ko te dara xewagul du ñu wax rek yam si waaye dañ leen di bàyyi ngeen seetaan loole nga xam ne fa la ko fas yéenee amal nañu ko décorer ak nañu ko placer mise en place bi yëpp orchestre beeg lépp ngeen xooloo ko seen bopp mbokki internet yi comme na ma laan daan waxee fii si DS Prod Média lu ngeen soxla dara du leen fi ëmp fii ba nga fa di leen may ngeen xoolaat vidéo yi ñu ñëwaat continué waat lu fas yéene kaay. mooy platinium fii mooy euh, platinium fii waaw or. voilà ñoom bi dem na ñu ngi ci or bi. waaw kay Idali moom mooy suñu correspondant bu nekk jamono ji fële sa Gambia ànd ak staff Wally Balago Seck ci turu Des Prod Média moom nag euh, ma nga fa lépp loo xamee ne dana xew foofee sa soirée ba dina de gala ba dara du leen si ëmp yaakaar naa ne sax boobu ba léegi yéen a ngi gis ay information yu jóge foofe sa Gambia te kenn waxalu ko lu dul waykat boobulee di wuyoo ci turu Wally Balago sekk di doom ci Thione Balago Seck dem si yàlla bi ñu jooy te noppeeguñu di ko ñaanal jàmm waaye di ñaanal waa Gambia dëkk Adama Barrow le ndax bu ñu waxee Gambie rek sa xel dafay dem ci Sénégal ndax benn bopp la rek comme ni ma koy waxee kenn mënu ko xarñaar ñaar ak Gambia ay mag ak rakk lañ nous sommes des frères loolu dafa feeñ rawatina nag àdduna bi yëpp seede ko kon ñi ngi ñaanal képp koo xamee ne yaa ngi yeewoo bu foofee sa réewu Gambia jàmm ak salaam. bu ñu fa paree nag mu mel ni dàgg bi am si showbiz bi diggante ki nga xamee ne mooy Wally Balago Seck ak. Sidi jóob mu mel ni Wally ginnaaw bu mu defee ab featuring bu ñëpp ràññee fii si réewu Sénégal waaye sax romb na fi ndax partout dans le monde ñu ngi koy coowee si diggante mot Viviane Chidid Ndour keneen nag génn na koo xamee ne buñ ne Wally Ballago Seck topp kuñ ciy toftal muy Sidi Diop Sidi jóob nag andi na beneen featuring bu bees bu mu defa at Queen Biz Queen Biz nag mu mel ni jamono ji sax nag nga xam ne neexoowul at waa Kaawu Wally Ballago sekk ginnaaw bi mu porté plainte ak délégué Amar bokk ci stafu staffu yi moom nag ginnaaw bi nga xamee ne génn na mu mel ab sabotage bi mu doon teg ci kaw wal euh, kii di Queen Biz waaye nag duñu yem foofu dañ leen di ñamal clip bi ni ko Queen Biz ak di Sidi Diop na waa na ñu ko waajalee ak na ñu ko tourné ñu bàyyi leen ngeen seetaan clip bi ñu dellu ci waat ci seen xibaaru people mi ngi noonu loolu lañ leen andiloon ami internet DS Prod Media point com featuringu Wally Balago Seck ak Viviane ginnaaw loolee Sidi Diop si jëmmu boppam amaloon na ab featuring bu doy waar fële sa suba teel ak si digganteeb ki nga xam ne mooy Queen Biz ginnaaw bañ leen demalee fële sa Gàmbi suñu correspondant ba fa nekk di Idali moom nag moo leen fa teewal si turu DS Prod Media dara du leen fa ump restez connecté si seen site leader DS Prod Media point com DS Prod TV yi bu leen ko fàtte lépp nag. dafay daal di teewee foofulee tweet Snap Facebook TikTok Instagram WhatsApp aussi si suñuy numéro bu ngeen ko amee statut yi lépp dana jàll ñu ngi leen di bàyyi xel cher internet ami internet yéen ñëpp partout dans le monde di leen bëggee di leen jaajëfa di leen joxaat di daje du yàgg dara si seen site leader Desport Media Desport point com ñu ñaan ak yéen ak fanaan ak jàmm joxe ngeen jëf.